te tàmbale dugg ci wax yi yàq julli mu jëkke yéene ba àggal wàcc yéene ja mën naa muy wàccug maa yéene woon yéeneetuma mën naa am itam muy wàccug xolum jàppatul ne day wéy ci julli gi mel ne dafa kàbbar rek yëg ni moom kat aajo woon a dem ci wana wa mu daal dogu ci bàyyi julli gi dem ci wana wa te ñëw julliwaat gannaaw ba bu gisee ne waxtu waxat na daa war a julli rek kat ndax mën na fee julli door dem ci wana wa te dara du génn doggam dogu woon ci bàyyi julli gi dem ci wana wa rek daloon na yàq julli ga saa yi bàyyee farata ci julli gi wala sart ci julli gi ci loo xam ne moo ko tey dug fàtte du dara moo ko tey dëgg-dëgg day jàpp ne kon day fo julli ga dal di yàqu su fekkee ne nag bàyyi gam bàyyi ponk ba njuumte rek la lay tax kon julli ga yàqu mooy mu yàgg mbaa mu génn fa mu doon julee waaye bu xasee tey bàyyi farata moom kon day fo rek julli ga dal di yàqu julli gi da ci am yett yoo xam ne ay ponk lañ ci wax maanaam ay ponk lañ julli gi ay farata lañu te dañ leen di wax du lu ñu jëf muy takbiratul ihram ak alfatihatu ak assalaam allahu akbar armal ak jàng fatiha ak wax asalaamaaleykum lu ci nekk farata la yooyu moom lu mu ca tey baamu ko itam du tax julli ga yàqu waaye nag ponk yi nga xam ne jëf lañu mel ne rukkoo mbaa sujjóot lu mu ca tey def ko defaat ko rek julli ga yàqu di ci mu rukkoo ñaari yoon mbaa mu sujjóot ñaari yoon bu ñu nee tey nag dana yóbbaale ak ñàkk xam fekkoon ne ñàkk xam moo ko taxa defaat farata jooy ji nga xam ne faratay jëf la itam du tee julli ga yàqu bu dee julli ba noppi tey ko lekk mbaa mu tey ko naan lekk ak naan ga lu ñu néew néew rek yàq julli ga lu may nag tuuti lu desoon ci gémmiñam ni ki lu taxoon ca bëñ ya mu wann ko moom jéggale nañ ko bu ko sàqan woon door a wann sax du tee ñu jéggale ko bu dee julli tey ko wax wax joo xam ne du ñu defar julli ga kon wax ja néew ak mu bari ñoo ci yemoo julli ga yàqu na mel ni mu julli ñu woo ko mu tey ko daldi wuyu wala ñu laaj ko mu ne waaw mbaa mu ne déet ndegam daa wax li defar julli ga bi ci ilimaanam dafa juum te mu sabaal ko sabaal ilimaan ji mënta xam la ko tax di sabaal kon mën naa waxanteeg moom wax ji yam rek yam ca bañ ëpp waaye nag su waxanteeg wax ju ëpp nag julli ga daal yàqu nga xam ne kon wax ngir defar julli ga itam te yem rek waaye su ëppee daal di yàqu daañu ko misaale ba yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jullee tisbaar mbaa takkusaan lenn la ca def rek ñaar ràkka daal di sëlmal Abubakar ak Omar ña nga fa woon waaye wegg gi ñu ko wegg tax na waxuñu ko dara ku ñu wax nag bul ya day ni moo ne ko dangaa wàññi am na ngaa fàtte yonante bi defee ne kenn ci yow yaar amut mu ne ko kenn ci yow yaar amut mu ne ko axa kay ak yonent bi laaj nag ñu ne ko wax na dëgg de mu daal di mott li julli ga ba noppi sujjóot wax de salaam li ñu wane ne noonee bul yedday ni wax yonent bi ci xisa boobu yonent bi daal di àggale julli ga ñoom ñëpp ñu àndaat julli àggale wane na ne wax ngi defar julli ga su ëpp rek du yàqu léegi wees woon mooy wax ju am araf mel ni man koo tekki mu am maanaa mu ne nag bu doon jullit génne kàddu goo xam ne amuti arafa ki maanaa itam nit ki muy julli rek nàññ ni aw nag di nàññe wala mu meem ni xar di meeme baa mu génne rek geneen kàddu ak gum man di doon rek julli ko daal di yàqu bu dee julli ëf ak gémmiñam te tey ko julli ko yàqu su fekkee teyu ko nag day sujjóot ba ànd salaam bukkiwul ak wal ak bakkanam wal ak bakkanam moom lay tax mu yàq julli ga mooy mu baril ko wala mu def ko ngir foofu ko defee ngir foo mbaa foofutoon waaye daa mujj bari julli ga daal di yàqu bu dee julli tay ko génne am wàccu mel ne muy julli tay ko looju am wàccu génn donte wàccu ma dafa laab te néew boole ca it du tee julli ga yàqu wàccu ma nga xamee ne du yàq julli mooy moo xam ne tayu ko mel ne mu sibro rek di julli am wàccu jekki-jekki génn kon wàccu moomee su fekkee dafa laab te néew te wëndu ca dara ca gannaaw ba mu ko mënee yàbbi kon julli ga dana baax waaye it su wàccu ma laabut ba am lu mu ci wan loo xam ne mën na koo bañ a wan moo ko wan ci tey julli ga yàqu nde su ko wanoon sax ci njuumte moom day sujjóot rek baax de salaam bu dee sikki sàkka julli gi mat naa matut dañ ko ne dañ ko ne woon jàppal la gën a wóor mooy matut daal di koy mottali moom na muy sikki sàkka ndax julli gi mat na wala matut daal di wax asalaamaaleykum kon julli ga yàqu na gannaaw ba seetaatoon mu wóor ko ne julli gi kat matoon na boobu it du tee mu yàqu ndax ba muy sëlmal moom ci sikki sàkk rek la sëlmale nga bañ cee boole nag koo xam ne day jax-jax yi maanaam bis bu nekk mu am julli gu muy julli dina table juum naam juumut di sikki sàkk mat naam matut waaye du ci am dara lu ko leer te bis mu ne lu mu néew néew mu dal ko benn yoon ci guddi mbaa ci bëccëg kooku dañ ne woon da koy jëlale bañ koo faale na jàpp ne julli ga mat na rek te bu sëlmalee mu sujjóot baax de salaam tooxale ko saytaane ndax loolaay faj jax-jax joojee koy dal kon mënees naa jàpp ne muy sikki sàkka julli ki mat naa matut ak mu jortu ne matut ak mu wóor ko ne matut te teewu koo sëlmal ñooy moo yépp julli ga day yàqu doon sax gannaaw ba gis na ne matoon na it du tax julli ga baax bu jàppoon nag ne julli gi mat na ci dogu baa mu jot ko njortu dëgër ba tax mu sëlmal julli ga kon baax na waaye nag la muy dogu dogu ne kat julli ga mat na mbaa mu jot ko bu dëgër it kat gannaaw bu ci amee lu ko wóor ne matutoo nit du tax mu baax faaw da koy daal dabaatal bu yàggut mu àggale ko bu yàggee mu julliwaat li ñu wax kay mooy mu am njort lu dëgër ne julli gi mat na mbaa mu am ca dogu daal di sëlmal gannaaw ba nag mu wóor ko ne matoon na kay mbaa boog xamaatu ci leneen lu leer lu may lam jàppoon rek ci mat na loolu kon julli ko baax na bu ko wóoroon ne moom jàppoon na ba muy julli ba ci biir nag mu fàttaliku ne am jàppam tojoon na wala am jàppam jekki-jekki toj mooy toj ma da ko rëcc ci daal di génn koy julli ko daal na yàqu moom ci boppam moom julleem yàqu na bu fekkee mooy jiite nag tam bàyyi fa saasay saasa defaatul dara ci julli ga ñam doon jiite moom duñu yàqule waaye itam bu defaatee dara ñu ànd ko moom rek ñoom it seen julli daal di yàqu su fekkoon ne it day jiite ba ci biir mu tey ko kat am jàppam it day yàqule ñam doon jiite itam yàqule li ñu wax kay mooy toj ma da ko rëcc teyu ko mbaa mu fàttali ko am toj rek kon bu dalee di bàyyi fa saasay saasa ñoom doon jiite ñoom mën nañu wéy àggale seen julli benn kenn jiite ci ñoom ñu àggale mbaa kenn ku ne àggale julli boppam moom rek bu dee jiite ba ci biir nag mu fàttaliku ne jàppam mi tojoon na mbaa am toj rëcc ko bu sañ a wiir ci noonu rek ne man suma noppee beru man dong julli saa julli bopp day mel ne kon dañ waxu leen dara ci julli gu yàqu ga dara rek daal julliwaat moom mooy gàddu seeni julli gàddu leen àq ju rëy rëy bu dee julli ba ci biir awraam ñori ko moo xam moo ko ñori moo xam daa jekki-jekki ñori ko ba tey julli ga yàqu na waaye nag awra ju ñàng ja jàqale woon nañu jan awra moo ñàng nga xam ne mëneesu koo ñàkk sàng ak awra ja nga xam ne ñàngut bu dee julli fàttaliku sobe su nekk ci moom wala sobe su tooy rëcc fee dal ko bu waxtoo yaatoo nga xam ne mën naa tàggoog sobe sa amaate barak julli googa yàqu na su fekkee nag waxtoo daa xat mënu faa tàggoog sobe sa amaate barak day war mu wéy ci julli ga bu dee julli dégg keneen di tari ba gàgg daal di koy gàgganti te kookee mu gàgganti kat du ilimaanam kon moom mii julleem yàqu na te ilimaanam moom bu gàggee tam yëg ne bëgg na koo gàgganti kon dañ koy digal mu gàgganti ko rawante na bu dee ci faatixe nga xam ne àggale ga mënta ñàkk bu dee ci faaro itam àggale ga mën naa ñàkk waaye bu yëgee ne ilimaanam bëgg na koo gàgganti rek mën na koo gàgganti waaye nag muy julli dégg keneen ku bokk sa ilimaanam gàgg mu gàgganti ko nag day mel ni daa waxante kooka moo tax ñu ne ko sa julli yàqu na ku firi xaqtaay waaye dañu jublu ree ku am kàddu doonte agul ci xaqtaay waaye ree ga am na kàddu rek dana yàq julli ga kooku nag mën naa doon kenn mën naa doon ilimaan mën naa doon maamoom ndegam ree na ree gu am kàddu bañ ko ne julli gi yàqu na bu dee kenn rek ku doon julli wala mu ko doon jiite na dagg julli ga moo xam ree googee moo ko coobarewu moo xam ne ko ëpp doole rëcc ko moo xam daa fàtte woon ci julli la nekk mu daal ndegam kenn rek la mbaa moo doon jiite te reen ree ba am kàddu julli ga yàqu na bu dee maamoom nag moom lay bëgg a wax maamoom ku ànd ilimaan daal di ree dañuy seet ba xam ree ja moo ko tey am teyu ko su fekkee ne ree ja teyu ko lépp da ko rëcc ëpp ko doole mbaa lépp ak fàtte la ndax daa fàtte woon ci julli la nekk daa am ñu wax ne kon julleem yàquwut ngir sàmmonteeg waxi ñooña day tax ñu ne ko da ngay ànd ilimaan te bu ilimaan jullee ba noppi nag nga jàpp ne julli googu baaxut daal di koy julliwaat waaye nag day fekk julli googee bañ a doon jullik jumaa bu dee julli jumaa te mën na bàyyi reeje dañ ko wax ne ko daggal daal di tàmbaliwaat ànd ilimaan fekk it waxtu wa yaatu su waxtu waxatoon nga xam ne bu ànd ak ilimaan ba ilimaan sëlmal du ci amaatu rakka ko wax ne ko gaawal rek dagg àndaat ak ilimaan kon mën ngaa takk ne maamoom moomu su waxtu waxatee day dagg rek tàmbaliwaat fi saasa su fekkee itam reexam joojee lépp moo ko tey fa mu dalee ba fa mu yem mbaa sax lenn ni reeja moo ko tey coobarewu ko mu tey lépp ak mu bañ a tey lépp am lu mu ci coobarewu atte bi benn la dañu maas ci ne julleem googee moom yàqu na ndegam mën naa bàyyi ree ji na dagg fi saasa daal di àndaat ak ilimaan dafa mel ni nag su mënta bàyyi ree ja ak lu mën di am nga xam ne bu wéyee dana reexaale ñeneen day war a dagg kon génn foofa ndax yàq julleem doy na waaye yàqaale julli ci des nag moom lu ëpp la ba jéggi dayoo bu julli ga dee julli jumaa itam te mën a bàyyi reeja na dagg rek daal di ànd ak ilimaan ndax xëy na bu ko julli jumaa googee rawee amaat feneen julli jumaa du yomb am na yu mu la wax ne la moom day yàq julli ba noppi nit ki reegoogee ak yeneen ak yeneen mu ne nag jeneen jëf jum def lu bare bare ci julli gi ba ku ko doon séen ne xanaa kii julliwut loola dal na yàq julli ga ne bu doon julli di wokk yaramam mbaa muy foye ak sikkimam mbaa muy foye leneen jëpp jëf jum bari la jëf ci julli ga te wokku ci julli ga rek bari waaye ba tax ku ko séenu ne xanaa kii nekkul di julli waaye bu ko waxut ci aw làmmiñam it ma ngi koy wax ci xelam kon kookee di julli jullim nga yàqu na ca loolee nde di julli di wokk yaramam mbaa muy foy ak sikkimam mbaa muy defar ak defaraat la mu làmbaayoo mbaa la mu kaalawoo yooyu yëpp bu fekkee ne bariwut daañu ko wax ca kanam di yàq julli waaye nag lu mu ci bari ba nga xamee ne dañ naatale moom day julleem julliwul rek julli nga yàqu walaw saxwan ak doonte ci njuumte la doonte sax juum rek tax bu doon def yu bari yooyee ca julli ga mel ni ku fàttewoon ci julli la nekk juum ga ak fàttewoon ci julli la nekk du tey julli ga yàqu dafa am yett yoo xam ne buñ tasee moom muy lekk naan wax asalaamaaleykum te tekkul julli ga mat yett yi buñ bokkee tase moom maase nañ ci ne julli ga yàqu na ba tey itam bu ci yaar tasee wax ji gën a wóor mooy julli ga yàqu na bu ci defee leen dong nag moom julli ga yàquwut la nga wees woon mooy bu dee julli lekk te tey ko mbaa mu naan te tey ko moom yàqu na fi nga toll fii nag mooy njuumtee tax teyu ko teyu ko waaye bu boole yaar yépp lekk ak naan julli ga yàqu na bu fekkoon ne nag daa lekk kese yem ca te bëriwut mbaa mu naan rek yem ca te bëriwut te teyu ko boole ci kon moom du yàqu jàppal ne kon bu ne yett yi lu mu ca def ci njuumte muy sëlmal mbaa lekk mbaa naan lu mu ca def mu ber moom rek julli ga yàquwut kon day sujoot wax da salaam rek bu dee julli am lu dox diggantee ma def farata ja te moom du tële dëgg-dëgg maanaam du ak ñàkk man dëgg-dëgg waaye am lu ko gàllankoor nag ba tee koo def farata ja men am lu ko gàllankoor ba tee koo rukkoo ba tee koo sujjóot ba tee koo jàng faatiha man nga koo misaale muy julli sax ci gémmiñam ab xaalis wala ay xeer yoo xam ne du seey ba mënta jàng faatiha loola kon yàq na julli ga ba tey bu doon julli yàkkamtee dem ca wana wa wala muy julli xelam di teey muy bëgg a wàccu ba tax mu bàyyi rukkoo mbaa sujjóot ba tey julli ga yàqu bu dee nag loolee ko gàllankoor teewul fexe na ba faratay mat sunna rek la bàyyi kon julli ga baax na waaye daañu taamu mu baamu ko ca waxtu wa yaar julli bokkaale waxtu li fekk waxtu jeexul nga xam ne xaj nañ ci ñoom ñaar soo dee julli gu ñaareel ga fàttali ko ne gu jëkk nga julliwoo ko woon mbaa julliwoon nga ko waaye yàqu na kon gii nga toll moom it yàqu na mel ne jant bu soxagut muy julli takkusaan fàttali ko ne moom julliwut woon tisbaar mbaa tisbaaram jooje baaxutoon mbaa bu dee timis ak gee fajar fenkagut yaar yëpp xaj nañ ca muy julli gee ba ci biir nag mu fàttaliku ne julli wutoon timis mbaa timisam je yàqu woon na yaari julli yu bokkaale waxtu te foo ko déggee ni ko yose woon ci gannaaw mooy tisbaar takkusaan ci wet timis ak gee ci wet li fekk xaj nañ ci seen waxtu te fàttewoo ko faaw nga war a jiital nga jiitu mujje nga mujj soo ko tayee rek njëkk a julli takkusaan ci misaal te julliwoo tisbaar mbaa nga tey ko njëkk a julli gee te julliwoo timis ndegam yaa ko tey rek takkusaan ma nga jiital du baax bu dee gee itam gee du baax su fekkoon ne nag fàttee tax nga julli takkusaan ba sëlmal door fàttaliku tisbaar ci misaal moom fàtte ga tax na takkusaan jooju baax na dañuy sopp rek boo jullee tisbaar ba àggal nga bambaat ko moom nii ndax mu topp ca moom na mu yelloo mu topp ko na li mu lay wax ni nag moom mooy ngay julli jullit ñaareel ga niki takkusaan fàttaliku nag ne julliwoo nga ko jiitu muy tisbaar wala bu fekkee julli nga ko itam xam nga ne julli ko baaxutoon kon yi nga nekk ci biir di ko julli muy takkusaan di fàttaliku tisbaar takkusaan gi yàqu na faaw nga dem jiital tisbaar doo ñëw nag julliwaat ko moom takkusaan mi bu doon timis ak gee it noonu lay mel loolu nag nee nañu bu daloon ilimaan it du yem ca moom dana jàll ba ca ñu muy jiite mel ni nga jiite takkusaan ba ci biir nga fàttaliku ne julliwoo woon tisbaar ba julliwoon nga ko waaye baaxutoon dañoo wax ne kon faaw da ngay dagg ñu ne boo daggee it ñu nga doon jiite dañuy dagg doonte ñoom julliwoo nañ tisbaar it du tey ñu war a dagg ne yow su fekkoon ne maamum la dal ilimaan di ko jiite takkusaan ba ci biir mu fàttaliku ne julliwutoon tisbaar moom maamoom koy day wéy ci julli googee julli ko yàqu na sax waaye na ci wéy ndax sàmmoon teg ilimaan li nga waxtoo yaatoon na ci wéy bu ilimaan sëlmalee nag mu door a jiital tisbaar baamuwaat nag takkusaan ci lu war boo juumee ba yokk ci julli ga loo xam ne ci xeetu julli la bokk li fekk tëllantiwoo julli ga na ay rakkaam toll woon nga doli ca lu toll noonu rek du yàqu nga ne tisbaar boo juumoon ba def ko juróomi rakka mbaa juróom benn mbaa juróom ñaar du yàqu waaye nag boo juumee ba def ko juróom ñett mu daal di yàqu timis nag ñett la waaye mook julli yi doon ñeent ñoo yemoo ci li fay jokkoo ci ñeent du yàqu timis boo ko tollanti woon bu juróom benn du ko taxa yàqu bu ñu ne du yàqu mooy yëpp da ngay sujjóot rek wax de salaam julli goo xam ne ñaar rakka dong la te moo julli suba ak gu ajjuma moom boo juumee ba yokk ca benn du yàqu waaye nag boo juumee ba yokk ca ñaar muy ñeent nag mu dal yàqu wetarit sunna su dëgër la mboolem julli sunna yi ci yoonu Malik moo ci gën a dëgër moom boo ci yokkoon benn rakk dong tollanti nga ko waaye du ko taxa yàqu maanaam boo juumee ba yokk ca benn boo juumee ba yokk ca ñaar muy ñett nag lay door a yàqu xeetu yi nga xam duñu farata waaye dañ leen sàkkal yemukaay mel ne julli korité mbaa tabaski bu ci nekk ñaari rakka wala fajar moom itam rax yibatu la ñu takk ko ci ñaari rakka wala julli mbaaw mbaa julli muuru jant mbaa julli muuru weer boo ko boolee ci julli suñu yooyu yëpp lay tax ñu yàqu mooy rek da yokku ca ñaari rakka li fay yokkoo ci ñaar rek duñu yàqu waaye nag boo ci yokkee ñaar ñu daal di yàqu bu dee nag naafila goo xam ne dugguñu ràññee limité ko boo ci yokkee lu toll ni moom it du ko tax a yàqu mel ne naafila gu mel noonu ba nga amee ñaar ñu digal woon la taayi sëlmal soo ko fàtte woon dem ba ca ñetteel ba ba rukkoo ba sigi dañ lay wax ne la jàllal def ko muy ñeent te nga sujjóot nag xabla salaam ndax wàññi nga nga wàññi taaya ak asalaamaaleykum ca ba nga amee ñaar ñu digaloon la toog taaya sëlmal te defoo ko woon soo defoon ñeent nag jàll ba ca juróomeel ba faaw rek moom moo xam juróomeel ba rukkoo nga ci ba siggi moo xam jotoo caa rukkoo da ngay delluwaat rek ca taaya ja te nag nga sujjóot xabla salaam ba tey bokk na ci yàq julli ilimaan raw la ba mu sujjóot nag baxda salaam nga ànd ko moom danga waroon a bàyyi ba fay lam rawee ba sëlmal door a def baxda salaam waaye ndegam sujjóotu gannaaw sëlmal la teew am nga bor boo war a fay wër laa ànd ak moom kon boo ko tayee mbaa nga ñàkk xam ba tax nga ànd ak moom ci baxda salaam ba rek sa julli yàqu na mel ne muy def baxda salaam nga ànd ak moom def ko moom sëlmalee nag xamoo ca loola daal jàll nag àggali julli ga fay lam raw woon du ko tax a baax fekkoon ne nag njuumtee taxoon moom kon du yàqu boo ko defee kay ngir tey wala ñàkk xam lay doon ba tey bu fekkee ne julli ilimaan amoo ca lu ma sax benn rakka kon trois fa nekk waaye nekkoo maamoom ak julleem daanaka ab jaambur nga ca waxoon nañ nag ne buy limaan sëlmalee dooli xaamaat da ngay jekki-jekki tàmbalee allah akbar tegale say rakki julli nag nam war a tegaloo kooku nag da nga amul julli lu matu rakka bu ilimaan doon sujjóot xable salaam nga ànd ak moom def ko itam sa julli yàqu loolu nag mën naa am loolu ndax mën ngaa ñëw ci rakka bu mujj ba fekk ilimaan rukkoo ba jàll nga ànd ak moom taaya ba mu sujjóot nag xable salaam nga ànd ak moom sujjóot xabla salaam naka musal mën na jóg daldi wéyale sa julli julli googu du baax ndax yow fekki woon ci julleem lu mat benn rakk kon ba nga àndee moom sujjóot sujjóot xabla salaam rek boo jógee jàll itam sa julli yàqu na boo xasee fekke nag ci julli ilimaan ab rakka bu mat kon sujjóot buñ ko digal rek dal la koy digal doon si la raw ba nga tax muy sujjóot fekkiwu ko itam waaye am nga julleem lu mat benn rakk rek sujjóot bi ñu ko digal daal la koy digal buy def nag xable salaam nga ànd ko moom buy def nag baax de salaam nga bàyyi ba fay lam roy woon door koo def bokk na ci yàqu julli nga bàyyi sunna boo xam ne bokkul ca yee ñu feddali daal di koy sujjóotal xable salaam jàpp ne wàññi nga dañoo jël ni sax sunna bu woyof waaye sunna ñu feddali sax yelu mbaa biral dong ñoo ci yaar yoo xam ne kenn ku ci ne soo ko bàyyee moom dong itam ñu digal la ca sujjóot waaye ku bokk ca ñoom ñaar bàyyi ca benn dong du tax a sujjóot mel ne allahu akbar li ñuy wax ci julli gi boo xasee weesu kàbbar ba jëkk allahu akbar ci yëpp bu ci ne sunna bu dëgër la waaye boo ci bàyyi woon benn allahu akbar dong tax nga sujjóotal ko xabla salaam julli ga yàqu sami allahu liman hamida soo ko bàyyi woon benn yoon rek bàyyi bàyyi nga sunna bu fedliku waaye lam doon benn tax boo ko sujjóotalee julli nga yàqu rawante ne nag nga bàyyi ngëneel na ne xunóor rek tax nga sujjóot xabla salaam loolu lépp julli day yàqu mu boole ci nag lee mu lay bëgg wax ci buntu jamooj loola mooy nga bàyyi woon yetti sunna ñu digaloon la nga sujjóot xabla salaam nga fàtte ko nag ba sëlmal ba mu yàgg boole ci mbaa nga génn fa nga doon jullee soo bàyyi woon moom ñaari sunna dong mbaa nga bàyyi biral yelu dañ ne woon kon dañ lay digal xabla salaam ndegam ba si ñett soo ko fàttee bu mu ko si yàgg da ngay bàyyi noonu te julli ga baax na waaye ndegam waaye nag saa yoo bàyyee lu mat yetti sunna ñu digal la nga sujjóot xabla salaam nga fàtte ko nag ba sëlmal ba mu yàgg moom julli ga day yàqu day bëgg wax nag yoo xam ne li feeg bëriwuñu duñ yàq julli ga waaye nag bu ñu bare itam di jàppe ko ne jëf ji bari ji kooku jëf ci julli ga julli ga door a yàqoo mu jëkkee nga julli dégg ko xibaar moo xam yow lay xibaar moo xam kaneen lay xibaar nga ne tekk ngir su gàtt déglu ko door a jàll ci julli ga déglu googee ndegam noonu la gàtte du yàq julli ga waaye bu yàggoon rek dal di yàq julli ga doon julli jiit wala jaan yu mën a lor dugmal si nga daal di gaaw rey ko yëggut te mooyu xibla julli ga du yàqu waaye nag boo wanee xibla gannaaw ngir loola wala mu yàgg nag julli ga yàqu boo doon julli am soxla tax nga joxoñ ak sa loxo mbaa nga dagdagal ak sa bopp loolu lépp su fekkee ne bariwul rek du yàq julli ga lan wax sax ne boo dee julli am ku la nuyu nga junj li ko wan ne ko julli gee tax fayuma la ci làmmiñ da koo boole ci nga xam ne di yàq julli yam ci waaye dañ ne sax moom lu war la boo doon julli am ku la nuyu mënoo ko fay ngir julli gi nga junj wan ko ne ko julli gee tax moom lu war la boo doon julli nag am ku la nuyu nga fay ko moom te tey ko julli ga day yàqu ndax da ngaa wàqanteeg moom rek boo doon julli di binni waaye métti ta ko waral wala nga jooy waaye ragal yàlla ko waral yooyu yëpp ndegam bariwul rek dara nekku ca su fekkee ne bindi ga métti tax waaye daa xas bari julli ga dal di yàqu jooy ga itam su fekkee ne ragal yàlla taxut nit ki daa am musiba mu ko dal rek mu faatule tax mu julli di jooy moom dañ koy jàppe ne wax dañ ne woon wax ci julli soo ko tayee lum néew néew julli ga day yàqu boo dee julli wax nag te teyoo ko te bëriwut du yàqu waaye bu bare it nag dal di yàq kon julli di jooy ngir ragal yàlla moom dara nekku ca waaye dana am nag takk-takk biñ la ci jox léegi ndax jooy dafa doon jooy gu am kàddu ak jooy goo xam ne amul kàddu man nga ne jooy goo xam ne amul kàddu moom moo xam ragal yàlla tax moo xam ragal yàlla taxut waaye mu kàddu amu ca du yàq julli moo xam moo ko coobarewu moo xam da ko rëcc ëpp ko doole ndegam rek jooy gi amul kàddu moom du yàq julli ga lu may nag daa dem ba bari ba ëpp su bari ba ëpp moom la koy boole ci jëf-jëf yu bari yu bokkul ci julli bu jooy ga amee kàddu nag mu aajowoo teqale su dee mën na koo bàyyi ëpp ko doole mën na koo bàyyi te jooy ga am na kàddu faw rek julli ga daal di yàqu moo xam ragal yàlla tax moo xam musiba mu ko dala tax moom daal ndegam jooy yi am na kàddu te it ci coobareem la ndax bu ko bu ko bëggee bàyyi mën koo bàyyi jooyoo faw mu yàq julli ga moo xam ragal yàlla tax moo xam ragal yàlla taxut nit ki am musiba mu ko dal su dee jooy wax mënu ko bàyyi nag na ko ëpp doole ñu teqale bu ko ragal yàlla waralee ak bu ko lu mel ne musiba rek mu ko dal waralee ndegam jooy yi am na kàddu te it mënu koo bàyyi da ko ëpp doole te it ragal yàllaa ko waral kon julli ga du yàqu tey mu ne kon bari ga yëpp du tax sax mu yàqu ndegam jooy yi nag am na kàddu dëgg la it ëpp na ko doole waaye ragal yàlla taxut ki musiba rek mu ko dal la moom day daal di yàq julli la julli xaddamiku daa wax ne du yàq julli ga benn yoon doonte sax amul woon aajo ci xaddamiku ga muy waxi mu gàtt woo xam mënees na ko jàpp itam ndax des na teqale sax di wax naa xaddamiku ga bu fekkee da ko aajowoo niki ak bëleem dafa fot mu xaddamiku ngir bëgg mën a wax bu doon ci faatiha jo xam nga du mën a ñàkk ndax jàng nga faatiha bu wér te nga xaddamiku moo koy maye du mën a ñàkk waaye bu fekkoon ne geneen lor la itam tax julli ga yàqu ca xaddamiku ga te it des ko ci digal sujjóot su xaddamikoo nag te xaddamikoo ko neex rek amut jenn lor ju tax mu def ko moom la ni Maalik wax na ci yaari wax benn ba dane du tax julli ga yàqu te boobu wax la Ibnul Qaasim jàpp wax ba des nag dafa teqale mu tey ko ak mu ñàkk ko tey waaye rek say boo jàpp ne ni mu ko waxee ci gàttal xaddami ko daal moom du yàq julli bay jàng nag al jawhar an nafis te sëñ bi topp boroom al axdar yi dañ faa waxoon ni moom xaddami ko ba bu dee lor dara nekku ca bu dee nag daa am lu mu bëgg xamle ca xaddami ko ba ñu sut ko mel neen daal lépp ci ngir mi li wax fii la ñu jàpp mu ne boo doon julli seen nag lu mat sattif nga dox nag lu toll ne sariwaayu yaari sàppe àgg ca satti soosee def ko sattif loola dara nekku ca li mu ci teg nag nga taxawal li julli am ko nar romb sa kanam nga dox lu tolloog guddaay yi ñaari sàppe ndax bés ku may jaar ci sa kanam moom boo xasee jàpp ne or may kay julli mooy rek diggante fa mu taxaw ak fa mu rëpp ëpp jëfam bu dee loolu dong moom wax bii du fa mën a ñëw ndax buñ ne or may kiy julli mi ngi tàmbalee fa mu taxaw ba fa mu rëpp ëpp jëfam rek ku nar a romb foofa da nga ko mën a bés mu bañ faa romb jar jar nga naa dox lu tolloog ñaari sàppi mbaa dara boo toppee nag ñu waxoon ne or may kiy julli day yaatu ba toll ne boo sànni woon aw saan mbaa nangam ak nangam wax lu gudd loole moom li mu wax dana fa mën a dugg bi mujj wax nag mooy ngay julli sa daaba nar a dem li nga waroon muy fas mbaa gëléem daal taxawal ngaa julli waaye yaa ngi koy séen muy dem loolu nag daa tudd rek daaba waaye ba doon jeneen alal tam mel nga tàmbalee julli am ku siif alal ja bëgg a daw ak moom atte bi benn lay doon su fekkee ne alal ja am na solo boo ko ñàkkee na la tiis te waxtu wa yaatu na dangay war a dagg julli ga dem toppatoo sa alal joojee wala sa daaba joojee door a ñëw julli su waxtu wa xatee nag ba alal ji ñàkk solo lool lool te it yow boo ko ñàkkee du la wàññi dara ndax alal ja mën naa ñàkk solo te yow bu dee ci ku mel ne yow ci ñàkk ñàkk ko diis la lool waaye ndegam alal ji am solo te boo ko ñàkkee du la wàññi dara du diis ci yow waxtu waxat boole ci doo sañ ragg julli ga da nga julli rek léegi ba noppee nag door koo toppatoo ba alal ja néew néew nag ndegam àgg na ci boo ko ñàkkee jaare ca loru ndax sa néew doole mbaa daaba jee nga waroon muy fas mbaa leneen fa mu demee te fekk ngay julli da di àll boo xam ne moom boo ko gisul rek soo tuut foofu ngay des sa bakkan des fa ndax àll bu gisuloo bu day jafe koy it ngay daal di dagg julli ga daal di gaaw bu dee alal ja nga toppatoo ko bu dee daaba ja nga gaaw toppatoo ko li mu ne woon nag booy dox wuti loo bëgg a def sattir jëm ci sa kanam mbaa am ko nar a jaay sa kanam nga dox bëgg koo bés wala sa daaba nar a dem nga dox bëgg koo jàpp la ne bu la neexee dox dox bu jub bu la neexee doxe ak wet bu la neexee itam doxe gannaaw mooy di arrière deltu gannaaw te bañ a mooy xibla waaye soo mooy xibla rek moom ci lu dul ngànt julli ga daal di yàqu loolu nag mu ngi feeñe ci li wax ci daaba ji daaba ji boo ko bëggee jàpp xëy na doo mën a ñàkk mooy xibla loola kon ngant la mooy nga xibla te ba nga koy jàppi di yàq julli ga mu ne itam di julli sag làmbaay rot nga jël ko defar làmbaay woowaat doonte sax mën laa ñàkk sëgg fab ko ba nga sëgg fab ko wala du wàññi dara ci julli ga bu fekkee da ngaa sampoon sattir ci sa kanam mu daanu nga dellu sampaat ko doon sax da ngaa sëgg ca ba nga koy sampaat du tax julli ga yàqu dara nekku ca dana yooyu mu ne duñu yàq julli sañes na leen def moo tax mu ne duñu yàq julli tew nag am na ci loo xam ne moom bañ gaa def moo gën ni ki di julli am ko xibaar nga ne tekk di ko déglu bañ gaa def moo gën bu doon julli itam jiib ja dëgmal si ko mbaa leneen luy lor tam jàpp ne mën na koo moytu julli ba sëlmal bañ jekki di ko rey muy yàgg mbaa dara loola it julli ko rek yooyu te di ko seetaan bu noppee door a jëflanteeg moom moo gën am nañu wax ci biir na loo xam ne ko tudd dagan waaye lu war la waxoon nañ ne boo dee julli am ko lu nuyu ne la asalaamaaleykum moom nga junju man ko ne ko julli gee teema fay la lu war la weesu na ak dagan dox jëm ci settirit maanaam armal taxaw di julli seen fi sa kanam la mën def satir nga waaxu dem ba tolloo moom def ko satir àgg na ci ak sopp wees na rek ak dagan soo bu wateel takk nag ne yi mu wax ne dagan nañu duñ yàq julli loo ca baril rek ba nga xamee ne ku lay séen dina tabale ba xam da ngay julli julliwoo dal nay yàq julli ga loolu mata jàpp la